juróom-ñaari waxtu ci ngoon xibaaru marax yi li ci gën a fës Barthélémy Dias di indi ak tontu ginnaaw bi nga xamante nag waaye wi askan wi daal dinañu génn taxawu Sénégal ca boobule coalition waaye naka noonu moom tamit yéy na yàbb ci li nga xamante nag moo di vote bi amoon ca bureau municipal bu mairie ville bu Ndakaaru dina si dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi leneen ci ay ponk waa office national de formation professionnelle ak waa ONG Jamra daal nañu xaatim ab convention ñoom nag seen bëgg-bëgg mooy gunge ñi nga xamante nag mooy ay doomu sénégalais ya nekkoon ci bitim réew te ñu delloowaat leen fii ci réew bu Sénégal. enseignant bénévole ya nekk ca diwaan bu Sédhiou li ñu bëgg rekk mooy ñu tabb leen ca fonction publique ñoom nag fukki at a ngi nii ginnaaw ñuy sàkku li ni mel ci biir xibaar yi di ngeen ci dégg kàddu Souleymane Konté mu jiite boobule association. ginnaaw fuqati nguur ba am ca diwaan bu niger waa sadaya woon ak xam naleen dina utiliser ab bu force ngir ña nga xamante di militaire yi dellowaat nguur ga ca noonu ki la di alassane draman watara njiital réew bu côte d'ivoire da dina ànd ci lu ni mel fas yebal ay soldaaram mbokk yi lii lam ab tënk la neskis ñu yaatal ñàkk déggoo gi dox jamono ji diggante coalition Yewwi Askan Wi ak taxawu Sénégal di gën a wéy Barthélémy Dias bokk ca taxawu Sénégal nag di xam ne nag war nañoo dakkal kaddu yu ñaaw yi nga xamante nag ñu ngi koy teg seen ndodd nag moom mi leen mu ngi xam ne lu ni mel ni ki démb bi muy janoo ak taskatu xibaar yi moom maire bu Ndakaaru daal dina dikkaat ca mbirum élection bureau municipal bu mairie ville bu Ndakaaru ak Abbas Fall ma ñu jële ca premier adjoint au maire ba Ibrahima Mansali Alioune Badara Ndiaye ñoo ñu teewaloon ca boobu leen dajee daanaka dara doxatul ci biir coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw bi nga xamante ne samp nañu équipe bu bees ci biir mairie bu Dakaaru mu daal di indi benn jiixi jaaxa firne bi bokk na ci Abass Fall mi nga xamante ne moo nekkoon premier adjoint au maire bu ndakaar ñi daal di koy jëlee ci poste boobule. ana lan moo waral boobulee doxalin maire bu ville bu ndakaar daal di ci indi ay leeral. am na Khalifa Sall mon candidat man candidat man candidat Khalifa Sall du membre du conseil municipal de la ville de Dakar te man xam man politicien ci ay instruction ko def man Khalifa Sall téléphone depuis maintenant 4 ou 5 jours Khalifa Sall ma sax est-ce que à reprendre le bureau municipal de la ville de Dakar

ndax lan ndax bëgg a lëndëmal xelu nit ñi ak tamit jël nit ki bëgg ko comme un traître ak situation mu ni taxaw Sénégal bu Khalifa Sall ak coalition Askan Wi tas na ba ñaar ñi nga xamante ne ay xarit lañu woon démb ñu ennemis jurés assemblée nationale. kon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 te ñom ñoo duggal seen charte yeewi askan bi ke Khalifa dafa nar bokk par force justice dal di leen di débouté ba ñuy wote loi bi assemblée nationale ñom ñépp a genn génn ñépp gedd dañu gedd assemblée ñëwaat fi geddaat fi xaleel mooy gedd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 crise bi lee ci biir coalition Yewwi Askan Wi mi ngi dëggal kaddu bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall fësaloon na ko ngir tas opposition bu Sénégal ndaxte mennum coalition Yewwi Askan Wi moo fi nekkoon ngir mën a jàkkaarlool bu baax a baax ak coalition bi lee di Benno Bokk Yaakaar laaj bu ñuy samp ba xam fii la élection présidentielle yu 2024 Yewwi Askan Wi mun nañ am magie de la politique ngir ñu mën a retrouver waat lëkkaloo googu sax ñuy nemmeeku ci parti politique yi bu ñuy dem ci ay jongante moo xam yu njiitu réew la wala déet comme ni ko Pastef dexewoon ak taxawu Sénégal ak yeneen ni parti politique si biir coalition Yewwi askan wi askan wi moom li ñuy laajte ndax boobu boobule coalition dafa nasaay jamono ji naka lan mooy nekk ëllëgu kujje gi rawatina ci jongante njiit réew yi ñu dëgmal ñaar fa fan ak juróom ci weerum février atum 2024 Fat Bintou Ndour Emmanuel Sarr ñoo tataan seen ay kàddu ñu teewlu leen bu ma leeree ne maag yow dañuy te leer na ma leer ma ne bokkuñu ay valeur non lu ñu ànd quoi. ni ko mën a gisee moom mooy franchement ñi moom dañ waru quoi dañ waru Sonko carrément dañ ko war. parce que fekkoon dafa sincère maanaam dinañ xool askan bi nga xamante ne ñoo nekk seen ginnaaw depuis yeewi askan bi am ba léegi nii. surtout Bart ak Khalifa dañu amoon intérêt ànd ak Sonko peut-être pour se relancer politiquement wala leneen. doole bi ñu amoon fi ñu leen teg amoon yaakaar ci ñoom quoi. instant bi gis nañ ne ay intérêt personnel moo nar a tax ñu diviser wu quoi. su fekkoon intérêt dëkk bi moo leen tax a jóg ñoom ñëpp daa ñu def benn nekk benn say nga xamante ne maanaam situation yi ñuy dund daañu si mën a génne quoi. cool yi neex naa faj quoi du ay wax moo koy faj du ay détail moo koy faj du ay plateau moo koy faj mais li koy faj mooy ñoom moom suñuy kar ñooy xool ki ñu neex ñu sànnil ko ko. Euh, waaw mais Sénégal dafa soxla pour man gouvernement boo xamante ne Sénégal doomam yëpp la soxla. ñu nekk opposition am na ñu nekk pouvoir am na ñeneen ñoo xam ne société civile lañ nekk dañu war a def benn gouvernement d'union nationale parce que dund bi métti na trop Sénégal. ñu fare ca parti ba woon di Pastef ñu ngi gëm ba léegi bokk usmaan Sonko ci joŋante njiitu réew yi ñu dëgmal ñaaf ki fan ak juróom ci weerum février atuma 2024 ndem bu fekkee jamono ji nag ñu ngi laam-laamee sax bindoom ca yooyu les list électorale lu yées rek juróom benn weer ñu jëm ca yooyu lay joŋante askan wi moom ñu ngi xam ne rek projet bu Pastef moom du naax saay bu fekkee nag keneen mooy jiite boobu lay candidature jëm ci yooyu lay joŋante Astou ak Emmanuel Sall dox daje ak ñenn ci ñoom ñu seetaan reportage ginnaaw buñ ko tegee loxo teg ci tas partim bii di Pastef moom Ousmane Sonko moo ngi ci buntu ñàkk bokk ci candidat yu nar a dem élection présidentielle yu ñu dëgmal ñenn ci ndaw Pastef yi di ñaaw lu ni mel. ci loolu noonu wax dëgg fa yàlla man je suis pas d'accord quoi parce que loo xamante ne buñ ko defee day indi polémique ci dëkk bi day indi problème yooyu war nañ ko mën a di ko di ko éviter parce que à chaque fois problème bi toujours. suñu leader la Ousmane Sonko te Ousmane Sonko nekk na nit koo xamante ne boobu mën nañu wax que ne lu mu nekkee yàlla moo ko def ci moom nit ki à tout fu chaque fois da ngay nangul nit ki lu mu doon. koo xam ne boo ko laalee dëkk bi day yëngatu liggéey yi arrêté lépp loo xamante ne nit ñi ñu ngi ciy jël seen bopp di ci jëriñu di di daw di wut dépense léegi boo boo laalee kooku noonu réew mi yëngu. yow boo toogee sa jëmmu bopp war nga mën a toog nga xoolaat ni ngay defee nga ne ah lii wax dëgg fa yàlla parce que aduna aduna yàgg na yàggul lii yëpp day jeex. jamono jii doon ab waxtu gu am solo si ñi nga xamante ne bëgg nañoo samp seenu ko nënd si élection présidentielle yi ñu dëdmal te des sa juróom-ñaari weer laaj laaju ñu samp rek mooy su dee dëggal nañu ñàkkum dem élection kii di Ousmane Sonko kan mooy yenu projet bi. waaw bon numéro 2 bi ñoom ñu ko génne mais nii nii nii peut-être numéro 2 bi mun nañ ko xaw a génne. mais si nous insister nous un plan B un plan C un plan Y Nous avons à donc nous, avons un un musée musé nous bu baax son numéro 2 bon numéro 2 aussi nous ko a tout parce base politique bi nga xam nit ñi politique nous donne base solide numéro 2 ba numéro de boobu am base parce que minimum war nga am base war nga gagné sa électorat war nga gagné sa biro de vote donc nag c'est kii beneen bi peut-être bu fekkee dindi nañ ko dëgg la léegi Pastef na génne soo numéro de bu génnee son numéro 2 présenter programme am bu Sénégalais yi wóoloo daa di ko daal di ko daa di ko fal. waaw war nañ mën a tànn comme euh, Déthié Fall kooku noonu bon am naa yaakaar ci moom quoi. gis naa ne kii nii war na war na war na mën a war na mën a apporter réew mi dara. njiitum réew mi président Macky Sall woote woon na fi ab dialogue le 31 mai bi ñu weesu ñu bëri jàppoon ni dialogue boobee dina doon seddal tension politique yi fi am waaye laale ak yoon gu Ousmane Sonko di dund mën na koo xañ a tëggum dënd ci élection présidentielle yu nar a am février 2024. coow toujours day gën a aggraver situation pour man waa Pastef war nañ mën a toog ñu def dialogue politique. dialogue ci politique la bokk ñu waxtaanee ko def négociation. moom waxtaan moo koy indi waxtaan moom tànk amul jubboo du mën a am il faut ñu waxtaan lu mu doon lu ne waxtaan le muy guerre ak lu mu mante doon rek ci waxtaan lay mujj. bo góota bi góota góota bi ne xeex moom mënu ko faj stratégie la ak waxtaan rek moom moo ko mën a faj mais xeex moom day gën a yokk mbir mi euh, musiba. voilà donc ne euh, waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan dal moom moo leen mën a may pour ñu mun koo génnee ñu mën a def réconciliation. pas-pasu góor na man nekk sàmm ak aar nit ñi ak seenu alal looloo waral ñu war a tëgg élection yu ànd ak sécurité. yaakaaruma loolu noonu man tiit naa am tiit naa ci benn côté parce que mënuñu comprendre fii ak euh, huit mois avant élection sept mois ba six mois mënuñu xam exactement ñan ñoo war dem élection ñan ñoo war a bokk ñan gars defuñu tournée kenn kenn mënul def tournée. waaw bon am nañ ci yaakaar Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi ama am problème élection élection daan na am transparence te daan na libre ci li ñu fekkee Senghor ba léegi fekkee nan ay élection gis nañ ay élection Sénégal moom kenn dootu leen jàngal élection nan nan koy defee élection moom euh, sàcc élection jeex na ci Sénégal bon ñom ñi nga xam nak ñom ñoy les candidats nañu jëma dem defe ji sen base defe ji sen renouvellement defe ji sen euh, préparer di élire sen ay nit bay ciowli ñu ñu nanu sen arme moom mooy sen carte électeur discipline baye baña baña xex su waxtu élection jotee nañu jël sen carte ñu da dem voter ji bop mom moy arme bi gëna solide bi gëna bax kun ci ray da ngay perte kun ci rey da ngay perte amul benn yoon li li ma fekkee ak li ma gis képp ku ñu reyoon ci politique moom te perte nga. jafe-jafe yu bëri yu am si dëkk bi coowal politique moo ko waral mu def ab njàqare gu sonal askan bi te kenn xamul kañ lay jeex donte élection présidentielle bi jàpp nañ ko si février 2024. maître El Mamadou Ndiaye di ab responsable ci mouvement taxawu Sénégal naka noonu di maire bu Thiaroye sur Mer moom naka daal di nañ ko interpellé ni ki démb fële ca sûreté urbaine ñel wàllum yi jëmale ko ci ay investisseurs ci koppar gu toll ci ñetti milliards si suñu koppar yooyu les investisseurs dañoo jàppoon rek dañoo jënd ab suuf ci centre ville bi ci ay papiers ya nga xamante nag dëppoo na ak ñu koy yoonu tërale waaye bi ñu demee rek bay amali di mutation si leen xam ne rek yooyu les boo ay faux maanaam dëppoowul ak li xam xamante nag moo di yoon bu Sénégal noonu la ko tërale ci l'enquête bi ñu dénk waa brigade bu affaire générale jëm ci wàllum division des investigations dañoo daal di rek génne rek lu toll ci ñetti téeméeri millions suñu koppar daal dina jaar rek ci loxo ki di maître El du Ndiaye moom mi la sax daal nañ ko jébbal parquet général ba niki tey ñu àddu wax ci wàllum immigration clandestine maanaam tukki gu jaarut yoon bi njiital ONG Fronteras daal na xam ne nag benn convoi bu defoon lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari doomu aadama bàyyeekoon Sénégal daal nañu teer rek niki démb fële ca diwaan bu Tenerife ci boy doomu aadama nag am na ñeenti jigéen boobu lay xibaar rek di wane ne wàllum tukki gu jaarut yoon bi mu ngi woy ndem bu fekkee nag am na ay doomu aadama yu bëri si ñàkk seen bakkan nemeeku nañ ne ci weerum sulet bi ñu génn rek lu ëpp fanweeri doomu aadama yu jóge ci réew bu Sénégal nag daal nañu faatu ci waax yi naka la ñuy def ba gunge doomu sénégalais yi jógee bitim réew ñu dellu si waat leen mooy bëgg-bëgg waa office national de formation professionnelle ak kuréel gii di ONG Jamra ñoom sax daal nañu xaatim benn convention bëgg-bëgg yooyu la ñaari kuréel nag mooy dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex gi ñuy xeex tukki gu jaarut si yoon fii ci réew bu Sénégal Mamadou Muniru Li mooy njiital office national de formation professionnelle àdduna ci micro Aline Badara Ndiaye. sànq dañ doon xaatim benn convention ak euh, ONG Jamra comme ni ngeen ko xamee euh, question immigration dafa di loo xamante ne euh, ay ONG gouvernemental non gouvernementale yëpp dañ ci war a jàpp ngir ñu mën ko jële fii loolu nag moo daal di sabab tey jii ñu tase fii ak ONG Jamra ngir ñu mën a signer benn convention loolu nag dinañu permettre ngir ñu mën a am résultat yi mucc ayib ci xeex euh, immigration clandestine xeex immigration clandestine euh, boobule sax bokk na ci ay formation ci lu ñeel euh, immigré ñi nga xamante ne dañu nekkoon tugal ñu daal di ñibbisi ci seen biir réew ñu daal di former ndax ñu a am liggéey bu mucc ayib. moo tax ñu daal ak l'ONFP ngir ñu mën a amal ay formation ci ndaw ñooñu formation mooy basulep. lépp ONFP expertise. ci fan yooyu yépp te li ci gën a am uh, solo bu ñu la formé daañu jëbal uh, benn diplôme bi nga xamante ne dina attesté ca uh, qualification ci métier boobu reconnu par les branches professionnelles ñu àddu wax ci leneen ñi nga xamante nag seen liggéey mooy dindi fi mbalit mi jamono ji naka la ñuy def ba gën a jege askan wi loolu mooy seen yitte ba tax rek ñu fas yéene amal lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki point de regroupement normalisé ci juróom-ñaari région ci réew bu Sénégal ka jiite boobu lee kuréel naka daal dina am ab visite nemmeeku saytu yooyu la liggéey fu mu toll rawatina ci diggaanu Ndakaaru waaye nag daal dina am mbégte bu baax baax ca tolluwaayu looyu la liggéey koppar yi def nag toll na ci juróom téeméeri million suñu koppar Ibrahima Diagne mooy jiital Z ñu teewlu ko ci micro Alioune Badara Ndiaye. le Promozed a euh, engagé un important programme. que mu ngi war a defal lu ëpp deux points normalisés ci juróom-ñaari réseau yi nga xamante ni ne fa la projet bi nekk loolu sax waral ba tax ci premier phase bi ñu war a joxe lu toll ci 63 projet normalisé fii ci Dakar loolu moo waral ba tax man en tant que directeur général du euh, projet ma dal ma daal di wacc sur le terrain ngir dal di nemme ko li nga xamante ni modi di liggéey bi fum tollu visite bi sax ñu tambalé ko fi ci Dakar bala ñoo jall ci yeneen régions yi nga xamné dess na waaye fi ci Dakar sax ñu ngi wara livrer lu tollu ci 29 neuf euh, points normalisés fii ak euh, njeexitalu weeru août. ci yooyu les vingt neuf points sax gis nañu ne liggéey bi moom ma wax dëgg yàlla avancé na bu baax a baax ndax euh, mën nañ ne finition yi rek moo des quoi mu ngi ci quatre vingt pour cent. beneen aspect bi tamit moo doon ñu xool ba xam qualité wu liggéey bi macha allah liggéey bi mucc na ayib projet projet ba nga xamante ni ne ñaari phase la parce que benn bi mu ngi war a dem ci infrastructure structurante ak beneen bi moo di infrastructure à proximité loolu sax moo waral ba tax infrastructure à proximité yi ñu daal di ci def benn budget boo xamante ni nga xam ne mën nañ ko xayma ci 700 millions ci suñuy koppar. nous avons débloqué un budget de plus de 750 millions de francs CFA. ñu àddu wax ci wàllu mu njàng mekk njàngale mi direction générale bu ñu dénk njàng mu kawe mi ca ministère bu enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation daal dina xaatim abu communiqué rek di ci xam ne ñi am seen lijaas baccalauréat ci atum 2023 ni plateforme bi di campus seen dina ubbi rek li ko dare alterné fukki fan ak ñeent ci weerum août bi ñu dëgmal la ko dooree ca boobulee jamono ndongo yi nag mën nañoo amal rek seen ay demande prescription d'admission ci yenn université publique yi nekk ci réew bu Sénégal ci site bi di orientation point campusen point sn li ko dare altine fukki fan ak ñeent ci weerum août jàpp dimanche ñetti fan ci weerum sattumbar atum 2023 bu 23h59 daal di jotee naka lay tëj boobu lee site balaa ñu koy tëj nag ndongo yi nga xamante nag am nañ seen bac ci atum 2023 ñu ngi leen di woo rek ngir ñu ubbi li nga xamante nag moo di compte ngir mën a am numéro d'identification nationale de l'étudiant di INE daal di mën a tànn rek yan université lañ bëgg a jànge ak yan filière lañ fa bëgg a suivre laataa ñuy valider boobulee demande d'admission maa ngi leen ko doon junj ca bopp xibaar yi enseignant bénévole yi nekk ca diwaan bu Sédhiou ñoom nag ñu ngi gën a fàttali njiitu réew mi Macky Sall seen bëgg-bëgg bi nga xamante nag jot nañ ko ko yeggee ca tournée bi mu doon amal ca diwaan bu Pakaaw ñoom ñi leen nag fukki at a ngi nii ñuy joytu rek ngir ñu dugal leen ca fonction publique bi Souleymane kante moo jiite association enseignant bénévole yi nekk ca diwaan bu Sédhiou àdduna ci micro Mame Ndiaye. jàngale euh, loolu mat na fukki at te duñu am dara léegi Euh, li ñuy jël maanaam li ñuy jàngale si gune yi ndaw yi toll na ak euh, juróom juróom-ñaari fukki junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróomi fukk gune yoo xam ne ni ñooñu la ñuy jàngale at bu si ne li mu nekk ni jël nañu euh, programme enseignement dans le préscolaire dem nañu ba poussé ko ba mu dem ba vingt neuf pour cent si loolu tey li ñuy bëggoon dañoo ñëwoon pour que vraiment ñu fàttale suñu suñu njiitum réew mooy di son excellence monsieur Macky Sall pour que vraiment mu dimbale ñu maanaam yaakaar bu mu ñu joxoon bu mu doon ñëw si Sédhiou yaakaar bu mu joxoon ndax dafa ñu waxoon ne dinañu former te intégrer ñu dans la fonction publique. yaakaar boobu dañu ñëwoon fàttale ko son excellence pour que vraiment mu jàppale ñu mu former ñu ngir mu intégrer ñu dans la fonction publique ndax ne ni euh, coono ji yàgg na trop coono bi ñuy nekkee di dund nii du du ku moo koy nangu léegi si wàllum loolu moo tax tey ñu ñëw ñu taxaw fii.

loolu du ku si moo koy nangu kilifa yi nek ci yoonu mouride ak gouvernement bu Sénégal ñu ngi wajal bu baax a magal bu Touba ab serde naka daal dinañ ko amal fële ci diwan bu Diourbel ci teewaayu ki yore kàddu xalifu général ba di Serigne Bassirou Abdou Khader. lu tollu ci juroom benn bassin ak junney lampadaire solaire nak lañ bëgg def ci dëkk bu sell bobu lata 18 safar 1445 Antoine Félix Diome moy jëriñ ñu dénk walum biir réew aduna ci ñu tewlu ko. Nous avons enregistré avec satisfaction un taux de réalisation qui avoisine am nañu mbégte ci tolluwaayu liggéey bi ndax téeméer yoo jël juróom-ñaar ak juróom-ñeent yi daanaka yemm na li ci des gouverneur bu Diourbel mu ngi wéyal saytu bi ci taxawaayu état bu Sénégal bu weesoo loolu état bi def na ay jéego yu bari ci li nga xamante nag moo soxal xeex mbënd mi ak wàllum assainissement ci loolu ñaari at yi nga xamante nag moom la génn ay jéego yu am solo lañ ci daal di def ndaxte rek ca euh, bassin bu Kër ñan yokk nañ ndox mi muy jël waaye tamit gaawaay yi mu koy jële ngir yóbbu ko rek ca bassin bu nekk ca Daaru Rahman wala bi nekk ca Pofdi Euh, juróom benni pompe yuy yóbbu ndox mi ca bassin bu Kër Ñang laata muy teeri fële nga xamante nag mooy bassin yi ma du léegi di bassin bu pof di wala bu daaru rahmaan jéego yu mel noonu lañu def ci fànn yu bëri boo jëlee wàllum électricité atum ren rek defagum nañ lu toll ci yi lampadaire solaire ci ñaari junne yi nga xamante nag moom la ñu mébét mën naa ko jàppee noonu ci yeneen i secteurs yëpp nga xam ne état bi mu ngi dugal loxoom bu baax a baax ci Lampadaire, j'aurais pu, pour les autres secteurs aussi, les passer en revue et expliquer point par point les efforts consentis par l'État. ci ndogal loolu nga xam ne waa CEDEAO daldi nañu ko rek bu Côte d'Ivoire Alassane Ouattara moom naka daal na si ànd ba tax fasena yéene jebal ay soldat yu bàyyeekoo ca réewam moom mu di rek wutali réew bu Niger ngir rek ñu di président Mohamed Bazoum ñu teewlu ay kàddoom moom Alassane Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement. suñu mbëbët moo di ne ñu daal di bàyyi nu mu gën a gaawee kii di président Bazoum et sans condition suñu ñaareelu condition bi moo di ne ñu daal di koy installe waat ci ay fonction ngir mu mën a dellusi waat ci gestion dëkk bi comme ni ñu ko ko confié woon bu njëkk ba bu muy jël nguur gi te ñu ngi biral ni nag lépp li nga xamante ne dal na kii di président Bazoum ñii di putsiste yi ñooy responsable lépp li ko dal ak ay njabootam yépp soxnaam ak ñëpp ñi nga xamante ne dañ leen di daal di teg loxo ci ñi nekk ci benn bër personnellement maa ngi leen di sakku ngir ñu mun taxaw ci soxla nigérien yi te sama naataango chef d' état africain fësaloon nañ ko fii nii jamono ji ñuy wax ak yéen ci lu toll semaine lëmm amul courant ci dëkk bi lekk moom commencé na di manqué ci biir réew mi te loolu nag mën na jur li nga xamante ne moom la ñuy dippee la famine boo demee ci banque yi munoo retirer lu weesu ñaari junni jamono ji war nañu taxaw ngir ñu mën a jël souffrance nigérien yi ndaxte metti na lool ci boobu lay élément sax la ñuy jaarandi daal di ndar képp xibaaru marax yi rédaction bi dina fi dikkaat léegi léegi.